وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك di wax rek ni dañu fi ñëw tey jii euh, man ak euh, sama mag sama doyen Daouda Ndiaye mu di doomi gox bi ngir représenter fi ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla yàlla dafa def mu nekk ci ay xat-xat mu ne waaye lu man di doon na ngeen fa dem bu dimanché ngir teewal ma fa ñu kontaan ci bu baax a baax kontaan ci ci ñaari wàll wàll gu jëkk gi mooy suñu kilifa moo ñu yebal ngir ñëw teewal ko fi ndax Serigne Fallou lii mu sumb di ko def président la ko defal ministre bi la ko defal parce que li yàlla dogal mooy ni réew mi tëddee lépp lu jëm ci jàng ak jàngale ministre mu Talla lañ ko dénk te ku xam daara xam ni li ko tax a jóg mooy jàng ak yar kon li muy def ministre la koy defal moo la ko jàppaleel moo tax mu am ci yéene bu rëy bëggoon a teew waaye yàlla dogal mu nekk ci yeneen liggéey yu ko président sant mi ngi koy jotal nuyoom ak cantam ak encouragement am bërki démb rek bi may waxtaan ak secretaire général dañu ma ministre de bëggoon naa dem waaye nee na nañu fexe ba bu cérémonie de pose de la première pierre passée ñu fexe ba mu recevoir sëñ fallu ñu toog waxtaan xool naka la ñuy jàppalanteeg moom ci liggéey bi mu sumb. umpulewul ni képp kuy tabax fu ñuy jàngee ko yar moom ngay jàppale loolu lañ ko dénk. te anam bi mu koy defee dafa rafet. lettre bi mu bindoon ministre yàlla dogal la ci wax mooy ci li ko tax a jóg la ca jiitu mooy xale yu mokkal téere bi yàlla bi la ko ñaareel mooy ñu am valeur islamique cest à leen ci jikko yi tedd yi islam yi boole ceeg jàngaleen ay métier ngir ëllëg ñu am mën a taxaw ba am lu ñuy wax la xalaal loolu yaakaar naa ne mooy ëmb li tax ministre bi jóg loolu mooy ëmb suñu mission ñun ñëpp kon loolu yaakaar naa ni benn wàll la ci tax ñu jóg kon li ñu def rek mooy di ñaanal subhanahu taala lii mu sumb yàlla na ko yàlla eggale ci ay loxoom ak ba mu egg ba xale yi muurloo ko yaakaar na ni yàlla na ko def incha allahu mbir mu nekk na ko nit ki joxe fulla ak farata xaj na noona la si nit ñi aussi di jéem a jàppe ngir loola ndax ëpp na ay weeri weer ci ginnaaw jéego boo ci mosa doxit yëg nañ ko xam nañ ko te lii suñu warugar mooy mission bi nu état jox muy fonctionnaire lañu mus naa tukki di waxtaan ak benn kilifa tubaab mu man lan mooy fonctionnaire lu nekk jox naa ko définition mais ba mu paree dama ne fonctionnaire mooy kiy fonctionner rek saa boo fonctionné wu rek nekkatoo loolu ñun kon jëwrin yi ci boppam yi ci kaw politique yi nga xam ne moom lañ tëral moom lañ mën a dox buñ sikkul yàlla dogal na nag politique yi ñu tëral at yi daara dara jëtuwu ko ci wax leen ko dem nañu ba nga xam ni texte yaag waxtaan waag lépp loo xam day jur njariñ rek te naxaate nekku sa du mën a du mën a du mën a neex day metti njaal benn alhamdulilahi rabil alamina texte yooyu sori nanu xaj na euh, fan sa jaar fépp dee su ko faram-fàccee mais politiku gu gouvernement orienté wu na foofu te nag kayoor dëkkub daara la kon daara mënuñoo def lu dul yitteel ñu euh, rawatina nag bi nu sunu borom jagalee ñu man sa am ab cër boo xam ni di leen sa dox di leen sa wax ndax sant yàlla la ñuy def ndax fépp foo xam ne war nañ fa tabax daara Sénégal sama kàddu dina su dugg bu si état duggee te loolu maa ngi koy sante yàlla ndax la ma si manit la sa ëpp comme que ngaay si Sénégal la bokk ak li ko wër dinaa sa gën a góorgóorlu ni ma koy defee si wàllu nasaan ndax wax naa leen ni leen man de sama objectif mooy lépp loo xam ne école française soxla na ko si ngaay lu ma sa man du ma ko tàggu kenn lii ma nekkit sëñ bi engagement la wax naa ko inspecteur de daara amul lenn loo xam ne tey jii am naa sa xarañ sa loola man koo dox di la sa tàggu duma ko def dama koy def ñu koy gisandoo ndax Cheikh Ibrahima Fall dana wax rek ba keroog ñuy fay wax bàyyi jëf wax ja du am solo des ko jëfe ndax weneen fànn wee ma la junñi lépp lu ma sa mus a def tey jii ngaay si boppam directeur d'école yépp a ngi fi kenn musul dégg ni maanaam ko dinaa ñëw suba wala ginnaaw suba da ngay xëy gis rek maag samay bagage Cheikh Mahamadul Fadal maa ngi lay nuyu ci gën nga rafeti nuyoo ci kàddu ko sëriñ Mahamadul Muxtaar Mbàkke nee na ma woon nanga ma fa jiitu su ma naajiwul incha allah dinaa la fekk ci ay laay waxe ci ay tànkam laa fi ñëwee waxoon na ma su ma naajiwul incha allah dina dima fekk fii jataay bi kon ñu ngi lay ñaanal ci baaxub Sëriñ Tuubaa lii nga naan fii yàlla yàlla na la ko yàlla dimbali ba nga àggale ko ak jàmm ni nga ko bëggee rek yàlla na la ko yàlla defale noonu te lii rek ab sëriñ jàjju ba sëriñ jàng julli bay bu neppee def loolu aw xott la waaye du sëriñ sëriñ jàjju jàjju ba jàng julli bay kon lii mooy te ab mbuus defal deful lu gën pepp mhm. ab sëriñ tamit deful lu gën jàngale mhm. te nit ñi nit ñi la yàlla booleel diine rek a tax ñu ànd ak yow ak yàlla mhm. kan boo leen xamalul yàlla seenum ànd amatul njariñ kon diine bëriwutoon ngor boolewutoon dara boolewutu leen intérêt leen boole tamit islaam loolu la jox islaam a tax loolu la jox rek islaam a tax ñu terale la ko te islam kum teral teraanga ñi war nga koo delloo mooy lii ci diine rek ak daara nga ko mën a delloo mënoo ko delloo ci leneen kon li la li nga li nga war rek nga def mënees na la cee sant mënees na cee gërëm waaye ñaan la ñaana la ngaa gale koo gën ñu lay sant ak ak a gërëm ndax sa waar nga nekk loo war def kon yàlla na yàlla gën laa dëgëral te gën laa samp te te gën laa dooleel jiite sax ay ministre ndax suñu sono nitu daara lu mu am xeeb nañ ko nitu daara lu mu am rek ñun dañ ko dañ koo xeeb ndax yéen yéen niti daara yéen am qualité ak ak jikko ju ngeen mën a jëlee fi nit ñi kon loolu yàlla na yàlla gën a taxaw te guddal seen fan waa kuréel yi nga xam ne ñoo dar suñ fàllu ànd ak moom ci lépp lu ko alaaj dul sàmm waaye yàlla suñ damlo si bàyyi góoram bàyyi basak suñu Abdoulaye ak suñ Maodo ñoom ñëpp yàlla leen yàlla taxaw leen mbooleem njabootug sëñ Matar Sill ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar ak mbooleem ko fi teew jërëjëf sëriñ Fallu jërëjëf sëriñ Fallu taw bis ni tey nag kero bi ko waa ngas di ko jox sëriñ siñ matar ci la mu fi bay tool toolu ba ñépp di fi daje fi sama kanam la wan booba ay ay gouvernement amul booba jiraafa fi nekk ci yoo jamono ba tey jii nag saa buñ ko musaa woote lépp lu bokk ci kajoor fi la ñuy daje boobu bu la amee ji fukki fan yu mu tawul dañuy jël am ndënd di wax ci altine yi njaay di ko tëgg ñuy nañ dem bayi tool àllarba ba moo di sunu baaw naan boobu saa buñ ko bayee saa buñ ko bayee ba noppi bu jant bi soo loo yor te bañ mu tooy bay nga fat ko ñii ñépp am na gone yu bare bare bare xam ñu fekke nañ ko boo ba léegi nag jóguñu ci nun benn yoon bi ni sëñ Abdou Khadre jëlee tuxale si mataar mii tey suuf si ci sama loxo bii la ko teg ma yor ko sëñ galas suuf sama sëñ mataar joxoon mi ngi nii bis ni nga tey jébbal naa la ko bis ni nga tey mi ngi ci sa loxo yaag say rakk ak loo ci bëgg a yéene lii nga ci yéene sabab loo ko ci mooy fas fee def jumaa ak daara yal na ko yàlla yeggale ci barke sëriñ Fallu ba nga jullee ko ca bisub ajjuma woowaa sa kajoor gépp nga teewe lépp ci barke sëriñ Fallu eh, ñu ngi leen di nuyu ndax lépp matale na bu yàlla dogal ñu ñëw yëf yi melul nii dinañu jaaxal nii rek la war a mel ndax ku xam sëñ mataar si la fii ci kajoor xam ko ci ngaay mexe tey buñ fi jógee ba toolam yi nga xam ni mag ña ko daan bay fii ne ku ci ne am nañ yaakaar ci yow ni yaa nga ci àjjana mhm. ndax sama maam Assu Mbàkke Jóob ak Assu Jóob Mor mhm. ak mag ñi daan ànd ak ñëpp mënu ñoo lim ñëpp waaye doon na fi ñoo xam ni li wax dëgg yàlla li ñu def fii tey buñ demee ba def fii tànt di koy jëmmal sëñ Galas Sill di fi def daaray alxuraan joo xam ji kenn xamul lëm ca bëgg ak jumaa lu war la ñu ngi sant kam sama jëwrin góor a mbaw mi nga xam ni yàlla dogal na dama koo fekkanti sëñ Matar si la ñuy ànd di liggéey liggéey bi bu rafet wax dëgg yàlla bu waxee ba pare bu mënuma woon a wax ndax maa ngi soog a si ñu ngi di sant ñëpp di nuyu ñëpp di mm-hmm. jéggalu ñëpp wasalaam di rafetlu nag lii nga xamante ni sëñ Fallou la dañu ko yéene ñun waa Ngaye yéene ko waa gox bi di ci soññi rekk sunu mbokki politiciens yi ginnaaw bi nu gërëmee ñi nga xamante ni ñooy ay jëwrinam ñu ti mel ni ñoom jàngani jinde ak àggoon àndoon ci liggéey bi ay kebe appa di soññi sunu mbokki politiciens yi di wax sëñ bi ni ma koy faral di waxe ñun politiciens yi de ak autorités yi nga xamante ni dañuy dëppoo ni ñun àdduna lañuy bëgg may nga nu occasion pour ñu jaamu yàlla kon nag man ak ñi mel ni ñun de dinañ dugal ci sunu loxo ngir am njariñu àdduna ngir am njariñu àllaaxira ndax ñun kat xam nan kan mooy sëñ Matar fa nu dëkk yàgg na noo jub examen sunu jur jël ñu ñu nu demal ca sëñ Matar mu defal la ñaan dem nan fa entrant dem nan fa BFM dem nan fa bac kon nag xam nan la fa nekk yàgg nan faa rooti. barab bii nu toog tey. moom laa bëgg a parasante kilifa yii nga xam ne ñoom ñoo teew ci jataay bi sëñ Maxtaar Sylla dafa doonoon jarbaatub sëriñ Fàllu Mbàkke gane jamono 1918 sëriñ Touba jël aw turam laaj ko sun borom ba sun borom jox ko mu bind ko ci aw kayit jox ko ndaw ne ko demal Touba nga ne lu Mbàkke ndaw loolee nii la tudd te loola ngaay gii moo tax noonu nu xam ko dem ci maire bi Modou Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ndax fii ci maire Koul la bokk bi ma ci waxtaanee ak moom directeur dana ma lool de baaxuwuñ ko woon a def fii ci réew mii waaye yow nag ginnaaw ay kilifa ngeen te ay responsabilité ngeen bàyyi leen ñu waxtaan ci ak conseil yi su conseil yi juboo ci loolu danañ leen ko jox bu jubuwul nag ah da ngeen di toog rek ba natt ba extra ñu jox leen ci lañ leen cey jox waaye liggéeyub Serigne Touba boobee Serigne Fallou ne ko woon sëpp ci nga ngaay tax na conseil yi benn conseil bu bañ ñu ñu ko ca nañ ko bëggee muy doom joo xam ne tey jii lañ ko tudde Touba bustaanul aarifiina sañ ci sëñ Maxtaar Sylla yi ma bëgg képp ku toog fii nga yóbbaale baat boobu man sama jëmmi bopp ma xalaat ne biñ xoolee ba xam ne lii njaboot gi kenn ku ne mën nga caa am loo liggéeyale lislaam ma ne man nag li nga xam ne nii moom la ma ci yàlla séddee wax fu lillaahi laa koy def danaa ko dugal ci biir lislaam jël ko jël pot boo xam ne danaa ko teg kajoor gii adduna bépp xam ne lii exemple la du doon loo xam ne day yàq diine ma xam ne kër sëriñ Saliou fa laa déggee ngóor si ba dégg fa góor gi xalaat ne jamono itam soppeeku na ci jàng wi nit ñi daan jànge alxuraan directeur ni nit ñi daan jànge alxuraan bu njëkk dangay dem ba ci digg àll ba nga toj ak ndéndéer goo xam ne nii danga fay fekk ay coono dàq coono yi wala coono yi dàq la nga dajale fa say doom di leen jàngal alxuraan ñuy mokkal alxuraan te kenn du ci yalwaan yi ndax lañuy bay moom la ñuy dundee ñuy dem ba mu yàgg li ëpp ci mag ñi faatu nañ mbay mi itam dara baaxutu ci loo bay lu mu bari bari bari daanaka doo am loo dundee nit ñëpp daw ak seen dong yi nag dikk dugg ci biir taax yi wallaay boo dikkee indi juróom fukki dongo wala nga indi téeméeri donga te yàlla dugalul nga man leen a téye sa kër gi di leen joxeel dépasse faaw nga bàyyi leen ñu dugg ci biir kër yi ñu jox leen luñ mos ñu dellu si ci daara ji ma xalaat ne donga bi bu fekkee yàlla dogal na mu génn dem ci di yalwaani añ wala reer wala ndékki dana fa am ñetti waxtu ci yalwaan ndékki am ñetti waxtu ci yalwaan añ am ñetti waxtu ci yalwaan reer lu mu néew néew nag laa wax am na ci ñoo xam ne bu fekkee yàlla dogal na wenn melokaan nekk ci seen biir wallaahi yéen xasim jëlewuñ ko ci daara ji ci mbedd mi lañ ko jëlee ma ne naa jël ngaay tabax fi daara joo xam ne yéene jii laa ci am ngir bëgg leen koo wan ñoom ñii te moom laa leen ci seeni bureau fii bëgg naa fee tabax gone yoo xam ne bu ñu génnee président de la république danañ ko mën a doon danañ mën a doon ilimaan danañ fu ñu teg ab kamil ñu man koo xar séddoo ko jàng ko te kenn du du ne jox ma sàbbis ma wala am yeta bi loolu amee ci laa jóg ne nag lépp naa ko teg ci règlement yoon boo xam ne yoon duma ci jam mukk ci laa wut ay borom xam-xam yoo xam damay leer nit ñi am nañ xam-xam te lii may wax man nañ cee ànd nag man ci liggéey boobu fii man li ma fi am mënoon naa koo jaay def ko ci sama poos bii dem tuubaa di ko jëndee ginaar lekk ko ba mu jeex te du mujj fenn waaye ma xam ne nag am na lu ma ko gënal mooy liggéeyal Serigne Touba ndax sëñ Matar si la jàmbaar ji kenn du ko wootu di yaafus directeur lii moo ma indi fii tey démb xaw ma bërki démb bi ñu demee ci maire bii nga xam ne mooy Magatte Wade bi ñu waxee ba noppi dafa jóg taxaw tàllal loxoom ne téeméeri bërigoy ciment jox naa leen ko àddee Serigne Touba. kon ba di leen seereel ne bi loolu di am maire dëkk bii nee na téeméeri bari koy ciment bon baa ngi fii saa suñ ko soxlaa nañ ñëw jël si ko kon liggéey bii Fallou Sylla du ci dara ci àdduna sama njaboot duñ ci dara ci àdduna këyit yi ci sama tur la nekk waaye def naa ko fii sabilillah liggéeyal lislaam ci biir kayit yii di leen ko leerale noonu ci turu maire Maguette Wade nee na moom mi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci moom nee na di ànd ak moom di liggéey. nee na da ko woo tey booru 11h. ni ko bis bi kat fonk naa ko lool bàyyi loo jàppoon te ñëw teew ko ci. nee na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. nee na ñu ngi wax Serigne Habibou dalal ak jàmm. nee na di sant te di la gërëm. nee na ñu ngi sant Serigne Fallou Sine Maxtaar mii. ak mbooloo mii nga àndal ci liggéey bi nee na ndax daara jii nu bëgg a samp nee na dañ naan sax université la ndax nee na bu sottee nee na dungaay rek moo koy moom de nee na waxul Sénégal nee na waaye nag des nañ jëggaani sax ba bitim réew ñëw di fi sàkku si xam-xam nee na li nga xam ni moo am nii ah adjoint nee na moom de day wax ni ñun ñoo am chance ñun waa mairie Ngaye nee na ndax bu nu bàyyi xel ci bisub xasida yi passé nee na bisu xasida bi képp xam nañ ni Ngaye moomatu ko àdduna bépp ko bokk nee na lii nag moo ëmb loolu ba tey loolu lay niru nee na kon lii dal na xel nee na lii de jàpp nañ ni moom nee naa sëñ Fallou nee na li am nag tàmbali waaye amul yemukaay de nee na moom de gis na loolu te nee loolu su soomee nee na loolu kat soomee ñoom ñi xam ne ñoo ngànk maire bi ñoo ci gën a bénéficié wu waaye xam ne àdduna bépp ñoo bokk chiffre d'affaires bi nee na kon ngeen jàpp ne mbir mi seen mbir la nee na suñ doon wax njariñ lépp te duñ fi jógee waaye dañoo wax ne ndimbal na ci fekk loxol borom nee ndax li ñu tàmbali nee naa sëñ Galas nee na tàmbali nga lii de waaye moomoo ko de nee naa dina mel ni mbojum kaani de ku ne di nga doxuñu de ñëpp ko bokk rek nee na kenn ëppaliwu ci kenn amin nee na li sëñ bi ñaan fi tey yàlla ko yàlla sama borom nangu sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh nee na mbokk fi teew yëpp neena na mi ngi jël ay nuyoom bàyyi ko ci kilifaam ànd ak aw nit di ay nit ci boppam mu tànni leen boole koog ñoom man nag ñoo ñëw fii teewal si ko fi nee na mu jël looyu boobu bàyyi ko ci loxol si maxtaar mii nga xam ne seen doom la sunu jarbaat la noog baay mu bokk benn baay waaye noog yaay mu bokk baay seen mun basir seen mun faadal Cheikh Moudou Sa Cheikh Moudou Fadal ne lépp sëñ Tuubaa la nee na daanaka sax jëruloon sax moom ñu ñëw nee na di nuyu seen doom bopp jii di Serigne Fallou Sylla Mokhtar sëñ boo xam ne bi ñu ñëw nee na moom kat waajal na ko barki biig ba ci àjjuma ci boppam nee na waxtaan nañ ci mu ne ko fas yéene fas yéene naa yéene ñëw waaye eh, jaam ak bëggam lay am yàlla ab dogalam yële li fi xew lépp xew fa muy kenn yu rëy la ko bër nee na bu ci am looy tiit ba looy jaxle nee na yaa ngi xam li nga man li sëñ Tuubaa man doo ko xam de sëñ Tuubaa dimbali ab yaafus du dimbali ab yaafus du dimbali ab lawer ab ragal ba nga koon xam nga teg abraas fii ne asamaan si laa bëgg dem léegi léegi avion fekk la léegi yóbbu la wala dara yóbbu la sëñ Tuubaa kenn ko naalaal dara muy dellu ginnaaw nee nga rafet njort baax te dala sa xel baax maa doon tooñ ngi la doon tooñ ba sa waajur bi soog a dem eh, waajur ji mu natt fee waajur ko fa tàmbali dara demagul fenn mu bàyyi mu ne mbàcc la ko fi mu ne mbàcc la ko sa baay daa bëgg ko sa baay daa bëgg nga sonn waaye mën na ko àggal doo dem de waaye mën de daa bëgg bëgg utal jom kon jumaa ji dina àgg kon jumaa ji dina yegg lii yegg waxuma ko ngir daanu kat sëñ nee de ne damaa xam sëñ Tuubaa ni kenn du ko tàmbali dara muy des ginnaaw nee na amal pas-pas rek te góorgóorlu baax te nekk ci njub rek ndax sëñ moom dongaa bi kenn miraasu déedéet kenn ku si ànd ak moom kenn ku nekk sa jikko ngay ànd moom neen ah, murid yaa nii ñoo ngi nii ñëpp Sëñ Tuubaa bala yàlla booy Sëñ Tuubaa bul am frontière ci kenn garab gi boole ñëpp moo la boole moo la boole Sëñ Tuubaa kon da nga góorgóorlu baax sëñ wax na ne liggéey bii sëñ galas mi moom ko de waa ngaay moom ñu ko de nee lislaam ko moom nee na ku bëgg saaju faju nañ def sa dara ndax loo xam ne fa mu jëm dara du fa doy loo fa def saabu ni nga fekk lu faaw ko si njot laaxir nag moom nee na nangu na fret nee na nangul bagage accompagné kenn du ko def déglu déglu déglu sëñ bi nee ko li muy li muy sate nee na ko ngi yaay seen kilifa da ngay yëkkati sa loxo yëkkati sa loxo képp ku képp sant mbaw dim ñeeñoo na la wax ñaar fukki junni nga jox ko sëñ Fallou Gallass Syll mi ñëpp jaay ndox bi nee na sëñ Moussa Diagne ma ngi lay nuyu nee na sant bu baax di la gërëm ci taxaw bi nga taxaw Serigne Fallou nee na monsieur le maire nee na joxoon na nuyoo bi sëñ jàngale jiite mii mu jàngal leen cant gi ak ngërëm gi nee na kon mi ngi jëlaat cant gi sëñ Abo dina ko delloo jëf ji jëf ci moom di ko jaaree sëñ Fallou indi kayit yëpp wan ko ko wan na ko lépp fi ngeen jaar ak moom yëpp ak lu baax la ngeen def lépp dañ naan waa waa jooju di euh, kii golo moomee la ci ginnaawam gudd na waaye boo ko laal borom yëg ko nee lu ngay def ci moom rek nee yëg na ko nee ñu ngi tooñ ñu fi teew ñëpp sëñ Kase sëñ Assane Kase sëñ baa ngi lay sant baa jël gërëm ci taxawaay bi nga taxaw sëñ Galas tàmbali bi nee na tàmbali gi bisimilahi rahmaani rahim la waaye mujj gi yàlla na alhamdulilahi rabil alamin ñu ko ñaan bàkki Seexul Xadim bàkki maam Cheikh Mouhamadou Fadal ñun ñu ko teewe ñëpp yàlla ñu yàlla sàmm borom sàmm musal ñu bañ dëkk di ko baat fii ci lu gàtt yàlla may la fanu gudd kenn kenn ak yaa xam aaj yi tax nga ñëw boo fi jógee yàlla naa ji faju kenn ku nekk sa yéene li nga ci yéene def fas leen soxla yi naal ko ci yal na ko sama borom nangu أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي الله لا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأنت كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي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 أنت العزيز الأسي أقيم بإستي